maaleykum salaam Babacar jërë ngeen jëf mbokk yi déglu rajo Futurs Médias xew-xew bés bi Sénégal di daloo stade bu bees ba ca Diamniadio ay njiitu réew yu bëri war ko teewee Abdoulaye wadd mu ñu tuddee stade bi xamuñu dina teew am déet. Dakar ak Ankara di gën a ñoŋal seen i jëflante Macky Sall xamle ni dina xaatim ay accord ak Turquie ci wàllum défense président Recep Tayyip Erdogan ni bëgg na jëflante gi ak Dakar romb 500 milliards ci suñuy koppar. fédération bi boot syndicat ñiy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram fas yéene wana seen bopp duñu teew ci bés ñi jagleel wàllum vaccination ci xeex polio ba noppi daañu am grève ñett ak ñeenti fan ci weeru mars gi ñu jëm ci kaddu gi Fama Dione technique lay Diop ñu tàmbalee wàllum euh, tàggat yaram tey di bésu fête Sénégal di dalloo stade bu bees ba ca jam ñaajo ñu duppeekoo ko maître Abdoulaye Wade laaj bi sampe nag di ndax ki fi nekkoon président dina ko teewee am déet tontu li nag Doudou Wade ne xamaguñu ko waaye lu ci mënti ne daal PDS dina mobiliser fas yéene dem ca jëm ñaajo Doudou Wade ci téléphone Ibrahima Diamé. naka lañ koy préparé naka lañ koy préparé ci dem bi. naka lañ koy préparer ci fu ñuy toogee fan la ñuy lekk ban biir nangam nangam tout ça loolu mënuma ci wax dara mais niñ ko niñ ko niñ niñ koy préparer ci xol yi niñ koy préparer ci gis-gis bi niñ koy préparer ci dégg bi loolu mën naa la wax ne suñu parti ci boppam ak ay militant ak ñi nga xam ne ñooñu bëggal jàmm ñun bëggal ko suñu njaboot ak njabootu Ablaye Wade ku ci nekk ci yow am na lu nekk sa xol lu bees lu ci dugg parce que sargal nañu président Abdoulaye Wade parce que militant PDS yi ak bu ab PDS yi ak ñi nga xam ne dañ seen cofeel dafa nekk ci président Abdoulaye Wade ñoom loo yëkkati boo yëkkati woon bantu bale ne may nga ko Abdoulaye Wade ñoom yëg ko seen xol boo ko tooñee it ñu yëg ko seen xol wante boon tey dafa nekk bés boo xam ne bii dañ koy jàpp ci foofu bësu kontante la bés bu rëy la boo xam ne bii ci la ñuy jël président de la République Abdoulaye Wade tudde ko li ñu ko tudde ku am dara nag tuddee la ko te mu am loo xam ne muy nekk loo xam ne lu rëy la lu ñëpp soxal la bu fekkoon ne mënul nga ko te yëg ko avant ñu koy def bu doon turu nit dangay ngay dem yóbbaale dara. Mm-hmm. yóbbaale ndawtal yóbbaale lu ñu lu ñu ay yëre pour liir bi yóbbaale lu ñu ko wote donc parce que moment la moment de moment contenté la am nañu contenté boobu ci loolu am nañu yëg-yëg boobu ci loolu. Mm-hmm. ngoonte boobu suñu ñëpp ñëpp ci ñekk ànd ak ñun. am nañ ci mbégte te ñoom ñëpp bu ñu sañoon dinañ ko fekkee. Mhm. ndax mhm. ndax moom ñëw na moo ngi fii wala dina ñëw wala déet wala. maintenant ndax dina ci ndax dina ci ndax ndax mu ngi fi. waaw ah ba fi may nekk yoo xam yow nii nekkul Sénégal. du Wade chaine de télévision privée yi doon dànkaafu ni boo muyul du ñu teewee ndaje ma ndax jëfinu RTS mu jigi nag waxtaan am na ci tànk jàmmi ki ko dox di ministre de la culture ba RTS nii daañu mën a jël ab signal bu leer ñu teewlu ci noonu directrice bu 7TV Maïmouna ndox Faye ci téléphone Nafissatou Ndiaye saafara am na ci euh, ndax ñun li ñu bëggoon di lu jafe mooy li am mooy li am fépp te moom mooy li war a am euh, parfois yenn événement yi gis nga ko même ci compétition sportive yi euh, benn producteur mooy produire joxe signal bi ñëpp da ngay gis sax chaîne de télé yi fi ñu toog la toog def seen commentaire ñun loolu rek lañ doon laaj suñu espace audiovisuel bi ñun moom la ñu am moom la ñu yaakaar moom la ñuy dundee moom moo nekk ci suñu xol dañ dul bàyyeeti kenn ak ku mu mu nekk fi di dicter loi am ni ñu ko bëggee noonu lay demee loolu moo dul amat ni ñu réglementé dans d'autres pays noonu la ñuy forcer nit ñi ñu euh, nangu réglementation boobu fii ci Sénégal ministère bi prévoir na ndaje ak ñi nga xam ne ñoom ñooy éditeurs yeeg ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci espace bi yëpp. Maimouna Ndour Faye président yu bëri war a fekkee inauguration boobu lay bokk na ci bu Turquie Recep Tayyip Erdogan nga xamante ni mi ngi amal ngan fii ci Ndakaaru moom nag démb daje na ak président Macky Sall xam ne ni seen wàllum jëflante daañu ko. ñoŋal ba mu romb 500 milliards daañu xàccim ay accord jëm ci wàlluma ma défense ma Bey teewoon na ndaje ma président Erdogan li ko indi woon ci réew mi mooy inauguration stade bu bees bi stade Abdoulaye Wade nga xam ne entreprise turquie bii di suma moo ko liggéey waaye ak ñëwam dañ ko mujj soppi ngan gu ñuy liggéeye ci wàllu coopération diggante ñaari réew yi sunu ñaari gouvernement yi daal dinañuy xaatim lu toll ci euh, juróomi déggoo ci domaine yu bari te wuute nag moo xam politique bi la infrastructure ci wàllu énergie ci mbay mi ci njàng mi ci wàllu ndox mi ci environnement bi transport industrie commerce ba ci défense. la culture de défense rek la mag Sall wax kenn xamul li ne ci biir. yeneen accords yi itam détaillé wuñ ci lu leer. moom Macky Sall président de la république. rafetlu bu baax a baax diggante Sénégal ak Turquie ni mu yokkoo. ñaari at ci ginnaaw ñun ñaari président yi fixé woon nañu lu toll ci ñeenti téeméeri million ci xaalisu dollar. tey nag weesu nañu foofu fi mu toll sax am na ñuy wax ni àgg nañ ci benn milliard ci xaalisu dollar ma yaakaar ni sax dinañ fa yegg. entreprise yi turquie yi gaaw nañ lool ci liggéey te loolu wone nañ ko ci stade Abdoulaye Wade bi ñuy inauguré nga xam ni ñaar fukki weer ak ñeent ci la ñu ko waroon a def ñu def ko ci fukki weer ak juróom-ñaar jàngoro ji sax yàqalu leen gannaaw ay AIBD centre international Abdou Diouf ak stade Abdoulaye wadd feneen fi ñu jëm nag léegi mooy ci wàllu pharmacie ak itam weñ gi dëxuñu ci suufu Sénégal nga xam ni Tosyali yi moom moo koy gas. jërëjëf jëf Bey 8h tegal na juróom-ñaari simili. xibaar yu wér te yëngu-yëngu nar amati ci wàllum wér-gu-yaram fédération bi boot syndicat santé daal di génne seen plan d'action neen daañu amal ab grève générale ñett ak ñeenti fan ci weeru mars gii di ñëw ba noppi journée vaccination bi xeex polio bi ñu nar a amal daañu ko boycotté dañuy teewlu Cheikh Seck yor seen kàddu ci micro Georges Déthié Diop. 2016 la état étude boobu révélé ni agent de santé damay wax lu leer nañ ñi ñoo ci xam nga ñeneen ñi ñu ngi naan ñoom ñoom la ñu waxoon ni ñoom ñoo ci gën a tuuti la salaire déedéet ñoo ñu ëppale salaire fop du ma tudd mais xam ngeen li ñuy wax agent de santé yi ñoo ñu ci gën a tuuti la woon salaire mais ñu gis nañ ni non seulement ñi ngi corrigé bay yokkal ay ñeneen tey indemnité de logement sax amuñu ko te am nañu ko am ñu mérité wuñ ko mais tey jii boo gisee ci secteur yooyu koo xam ne niveau bac kese la am salaire mat na ñaari yoon salaire u infirmier d'état ak sage bi nga xam ni bac plus trois la yi ñoo ñëpp yokkalaat nañ leen te wala ñu ngi leen di waaj a yokkal ba pare ñun ñu bind lettre autorité muy ministre de la santé euh, waxuma la sax woo ñu ci waxtaan mais du du la bind sax lettre ni la ah jot naa sa courrier bi lettre yi envoyé nañ lettre ba président de la république déposé nañ préavis mais benn ministère moonu tontu ci ministère yëpp muy ministère de la fonction publique te dafa ne ñu rek jot na convoqué wuñ ñu donc tey jii ñoom ñoo indi situation bu demee ni moo tax ñu décider ñun ne euh, problème yi ñu am aussi bokk na ci li jëm ci plan de carrière yi bu ñu mën ko régler donc li ñu décider moo di envoyé nañ ci région yëpp pour demander camarades yi camarades yi ci boppam ñoom ñoo nu demander nu ñu fu mu toll nii dafa doy donc ñu décider ñu ne campagne bi dañ koy boycotter du ñu dem ci benn campagne de vaccination bu weesoo loolu alxames bële di ñëw incha allah muy le 3 ak le 4 dinañ def grève générale ñaari fan loolu avertissement la à partir Sénégal gi yëpp affaire bi nag pour travailleurs yëpp ñuy liggéey waaye corps docteur la képp koo xam ne gis nga ci sa bopp na jàpp ci xeex bi parce que sa xeex la. sage-femme ya nekk ca Kédougou amaloon na toogaanu ñaxtu muccee ñoom nag ne ñu ba moyul daañu boycotté lépp luy euh, structure sanitaire foofule ca Kédougou Diabou Cissokho président association bi boot sage-femme yi ca Kédougou ci micro Ibrahima Diabakhate te dafa war a arrêté dafa doy mënuñu liggéey ci condition yu difficile ba pare ñu jël sage-femme yi di leen maltraité ci structure sanitaire yi xool nañu population bi yeneen saa la plupart dañuy ñëw naan sage-femme yi dañoo am jikko bi jikko bi te sage-femme bi wonu ko jikko boobu après nga ñëw maltraité loolu du yoon da ngay xaar ba nit ki woon la jikkoom am na ay autorités yi fi nekk ñoo xamante ne Euh, ñoom ñooy responsable sage yi mun nañ jël sage boobu wax ak moom bu dee comportement bu ñaaw la am mu dellu si waat ci comportement bu baax liggéey si jàmm ak salaam mais population bi mënul régler problème am euh, au niveau des sages di leen maltraité mais sage-femme yoo xamante ne dañoo stressé fi ñuy liggéeyee du ñu a am benn résultat je pense que dafa war a arrêté dafa war a arrêté bu arrêté wul fan yii di ñëw mun nañ dem ba arrêté liggéey bi si biir maternité yi liggéey du ñu continuer parce que kenn respecté wuñu population bi daf ñu ñu war a respecté. syndicat jàngalekat yi bootu G7 ba léegi di wéyal waxtaan wi ci seen i base ngir xam nu ñuy wéyalee seen plan d'action ci fàttali gouvernement bi jël na dogal lu yëg ba 90 milliards. koppar gi nga xamante ni moom la jagleel seen i ndàmpaay dogal googu mu jël ko samedi bi ñuy amal la po ndaje diggante ñoom ak syndicat jàngalekat yooyu le assemblée générale bu SAMES ak CUSEMS SAEMS ak CUSEMS bu section Sédhiou euh, Sédhiou euh, ci 83 délégués yi ñëw ci localité yu bëri 81 voté nañu ngir ñu wéyal grève bi le syndicalistes yi di euh, ñaawlu nu ñuy ndomp ni ñuy ndàmpee ni ñuy compe ci seen seenub salaire Bakary Konté ci assemblée générale bu ñu doon amal fii ci diwaanu Sédhiou nekk ci SAMES ak CUSEMS ñoom nag dañuy rejeté proposition gouvernement bi ñi ne dinañu wéyal seen i grève Bernabé Diémé mooy secrétaire général régional SAMES Sédhiou. 90 milliards état bi di wax enseignant bi di di di lu ñu gis nii mooy état bi day annoncé ni dina joxe 350 000 waaye yow soo demee banque ba ngay jot li nga jot du mot 100 000 parce que moom sax xam na ni am na ay injustice waaye neewul di ko def mu ngi nii di jaxase xelu nit ñi di wax euh, quatre-vingt-dix milliards ñun taxawuñu foofu waaw taxawaay bi mooy dañu bëggoon xam ndax collègue yi pare nañu continuer euh, jàkkaarloo ak état def nañu vote bu démocratique parce que dañu bëggoon vraiment ñu xam ku nekk sa ci ne un vote secret la ñu def enseignants yi voté ñoom quatre-vingt-trois la ñu woon ci quatre-vingt-trois yi quatre-vingt-un ñoom lu état général CUSEMS section Sédhiou muy nangu nañ gaax bu fekkee gouvernement bi day amal ay ponction ci salaire wante na xam ni année kenn du ko prolongé. loolu mënuñu ko bañ mais li ñu wax ci loolu def ci yoon ba pare beneen bi ñu ci mooy comme nee jour yu ñu liggéeyul du ko fay ah jour yu mu fayal aussi ñun tamit nañu permettre ñu bañ ko liggéey waaw te bu dee loolu loolu la def amul problème mais bu na faxee ba bu ñu yokk année satisfaction si seeni revendication Bakary Konté Sédhiou rajo Futurs Médias jërëjëf Bakary dem ca Médina ak jàmm gën di ab commune yu nekk ca Ndombo Sanjeri foofu askan wi ñàkkum ndox la ñuy jooy ay at a ngi ñu ciy jooy nag maire ba di leen dalal seeni xel nee na ay travaux daañu ko amal bu yàggul dara ngir ñu mën a am ndox ma Madické Mbodj mooy maire ba ci micro Mamadou Diagne. Ndombo moom dafa am chance. yàlla moo def teraanga mu am ndox mu nga xam ne dafa neex trop ndox mu sooy xool parce que waa CSS yëpp li ñu jël ndox mi mais ndox mi donc comme ni ñu waxee rek <laughs> àggul Médina te Médina quartier bu am importance la donc man defoon naa fa sax ndoxu SDE mais ndoxu SDE Médina xam nga dëkk pël yi ñun defee ñu dugg si biir kër yi mais su dee ndoxu ndomb bi ma dana dugg mais euh, ren léegi ñun def nañu budget bu nga xam ne incha allah euh, ndoxu ndomb bi dana àgg Médina dans deux trois quatre mois léegi ñu ngi ñu def pour Médina day am chance léegi day euh, euh, joxaale kat kii doomu extension ndox ba pare jàmm gën renforcer seen débit parce que jàmm gën débit bi dafa dafa tuti mais nag ki mu ñu jël foofu day tax jàmm gën seen débit day day rëy joxal Medina jox na ko. ndox mi ndax xalaat ngeen exploité ka mu mel ne yeneen ndox yi mën ko def entreprise boo xamee ne revenu bi dina jural njëriñ euh, commune bi. waaw kooku projet boobu projet la mu nga xam ne balaa nekk maire sax jubluwoon naa si. lu ñuy wax mooy ndox mi amul benn problème amul loo si def. ISRA nag dañ ne bu ñu joxalee autorisation bi. il faut nga xam ndox mi quantité bi bu nekk si napp bi ñaata la mais données yooyu waa ndomb duñ ko réeral donc ñu ko doon wut mais alhamdulilah temps yi gis naa société bu nga xam ne moom amoon contrat bi moo moo moo defar forage tey su ma demee daa ko bind lettre pour mu jox ma données yi donc en principe su amee données yooyu léegi dinañ daal di mën demander autorisation d' exploiter industriellement ce. ginnaaw bi 8h tegalee fukki simili ak juróom xibaaru tàggat yaram dañ ci ànd ak Youssouf Bodian. ginnaaw bu ñu leen yoo ñu dooree xibaaru tàggat yaram yi ak stade Abdoulaye wat bu Diamniadio tey ci ngoon lañ koy inauguré président Macky Sall di ci ànd ak ay naatangoom euh, match d'ouverture bi dina dox diggante ñi fi nekkoon ay joueurs euh, Sénégal ak ay anciens joueurs euh, yu Afrique bokk na ci Nigérian bii di Didier Okocha Ivoirien bii di Didier ba wala sax kii di Samuel Eto'o di doomu Cameroun di événement bu mag ñëpp ñi bëgg a football ku nekk bëgg ci teew ba tax na ñu ngi dem jëli seeni invitation ca Sochip suñu ndaw doxantu na fa di Fatoumata Kijera ñu déglu bu amee couleur bu marron di waaj a ñibbi këram Aboubacry Konté dafa ñëw jël si carte invitation wam fii ci SOGIP ngir rek mën a teewee inauguration stade bu bees bi ñu tabax ci jam ñaajo talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février. waaw dañu ñëwoon pour jël si invitation quoi pour inauguration stade bi. jóge nañ ba Pikine ñëw jël si invitation après. depuis 16h presque en 16h ngi ñu fekk fii nii. léegi ñu yëg quatrième dem inscrire ñu bind suñu tur ak suñu sant ak suñu numéro de téléphone ñu jox rénovation stade bi comme que c'est un c'est un stade mythique. Fallou Gallas Amar moom itam jot na ci kartam moom sax dafa bëgg a teewee ji mbégte bii ñu am ci tabax stade bu bees. waaw dama ñëwoon fii nii tey Sosib nii doon jël si carte invitation pour inauguration stade bi suba parce que euh, ñun ñu ngi jaajëfal président de la république Macky Sall ndax bisu bi mu ñu defal mën nañu Afrique ñun dong ñoo ko fi am. kon ñun ñëpp war nañoo mën a mobiliser. stade bi ñu war a tuddee Abdoulaye Wade nekk ndam ci Sénégal. ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Ly. waaw man de au-delà de l'acte patriotique mooy man je vais pour me réjouir euh, infrastructure bu bees bu Sénégal am man personnellement en tant que sénégalais amoon naa tuuti jeune ndaxte dama bëri woon li may tukki. may dégg ñu naan Sénégal amul en tant que sénégalais amoon naa tuuti euh, gêne ndaxte dama bëri woon li may tukki may dégg ñu naan Sénégal amul stade bu waax ñu bëri ci askan wi ñëw fii ci SOGIP ngir jël seeni carte invitation ñu nemmeeku sax ne ñi bëgg ci carte yi dañoo bëri loolu. Fatoumata Kijera stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio juróom fukki junni place la pelouse bu hybride maanaam dañoo jaxasee gazon naturel ak gazon synthétique ñeenti vestiaire la am ak centrale solaire bu 2 mégawatts stade bu taaru bi kon la ñu inauguré euh, tey ci ngoon incha allah RFM di ci ànd ak yéen en direct football salle solaire bu 2 mégawatts stade bu taaru bi kon la ñu inauguré euh, tey ci ngoon incha allah RFM di ci ànd ak yéen en direct football salle solaire bu 2 mégawatts stade bu taaru bi kon la ñu inauguré euh, tey ci ngoon incha allah RFM di ci ànd ak yéen en direct football salle solaire bu 2 mégawatts stade bu taaru bi kon la ñu inauguré euh, tey ci ngoon incha allah RFM di ci ànd ak yéen en direct football solaire bu 2 mégawatts stade bu taaru bi kon la ñu inauguré euh, tey ci ngoon incha allah RFM di ci ànd ak yenn en direct football ci jigéen ñi ak euh, match retour éliminatoire CAN Maroc 2022 équipe bu Sénégal di ci daje ak Mali tey ci ngoon ca Bamako gaynde yi ci match ale bi ñoo amoon ndam benn bal ci dara ba tax na kon dinañ jéem a valider seen ticket ngir dem ci Maroc dëmb sax équipe Sénégal jot naa amal euh, séance d'entraînement bu mujj foofule ca Bamako euh, Sénégal nag li mu bëgg mooy delluwaat ci CAN ci jigéen ñi ndax bu ci mujj ca Guinée équatoriale la woon euh, ci atum 2012. football ci góor ñi Sénégal kon jël ñaareelu place bi ci coupe d'Afrique des champions scolaires ca Kinshasa euh, ci euh, équipe Sénégal boobule kon dafa ñàkk digganteem ak RDC ñetti bal ci benn équipe Congo daanaka dafa jalgati kon li ñuy waxoon ci wàllum at ndax dañoo ne fukki at ak juróom-benn ak li ko yees waaye joueurs yi ñu gis yu Congo ay mag lañu ba tax na délégation yu bëri ñaawlu nañ ko waaye chef délégation bu Sénégal jàpp ni rek li gën a am solo mooy expérience bi joueurs mi am ci jongante yooyu la musa Dia nekk tamit chef de la division des sports des activités de jeunesse ca ministère de l'éducation nationale. ñu yóbbu woon ñun ñaari délégation mooy ci xale yu góor yi ki gagné woon ci Sénégal muy CM commune 2 bu Kédougou. ak ci jigéen ñi sayam Kanjalan ba Ziguinchor jigéen ñi nag euh, ay la moom euh, résultat yi ñu am baaxu ci plan sportif ñaari defet lañ fa am ak benn match nul waaye xale yu góor yi taxawaay bi ñu amoon ci tournoi bi fii ci Sénégal gis nañ moom la ñu amaat foofu parce que bi ñu demee fële tamit yàlla def nañu am victoire ak match nul match de poule bi ñu génnee tamit ñu gañewaat demi final dem final ak RD Congo euh, final bi nag am na ay euh, jafe-jafe yu ci am ndax ay la ko gis photo yi ak film yi xam ni xale yi ñu doon jonganteel ñoo leen mag fuuf li tax coow bariwu ca lool ndax euh, compétition bi ni mu déroulé ak la ko taxoon a jóg mooy boole ay xale yu nekk Afrique ci biir école yi ñuy wecco ay xalaat saafonte xamante euh, waaye nag bu lii weesoo dinañ ci am ay jàngat yuñ ci def ndax jafe-jafe mu ngi jóge ci ñun réew yu déplacé woon dem yëpp seen passeport la ñu présenté woo waaye RD Congo ñoom amuñu passeport amuñu carte d'identité donc ay certificat de naissance lañ ko tuddee foofu mooy extrait de naissance moom xam ni dafa am photo moom lañ doon fubale am match yëpp am na présentation avant match ba mu des final bi waaye yooyu nag mënuñoo dem ñun ba foofu nekk délégation Sénégal ñuy nekk ci ay werante ak ay wax yoo nga xam ni mën naa yàq foofu jongante bi ñun li ñu tax a jóg li ci ëpp mooy jàngal xale yi hmm. te nañ leen di jàngale mooy jox leen jikko yu baax jàngal leen jub ak jubal. Dia di chef de division des sports euh, des activités de jeunesse ci ministère de l'éducation nationale basketball la ñuy waxtaanee ci góor ñi ak qualification euh, coupe du monde 2023 yi kon doon démb ci gaynde yu Sénégal juróom la ñu doon jot a entraîné euh, ca stadium Marius Ndiaye démb ci ngoon équipe yi kon nee nañ démb ci guddi war nañu mat ba wéyal seeni entraînement ci stadium Marius Ndiaye ak Dakar Arena suñu sukkandikoo ci seen sélectionneur adjoint di Mamadou Gueye Pape. certainement le reste du groupe li des ci groupe bi nañu fekk si euh, tey parce que ñenn ci ñoom dañoo amoon euh, match ci dimanche bi ginaaw match bi lañ jël vol kon tey fii ak euh, yi dinañu complet comme amuñu woon ay joueurs yu bëri profité nañu pour liggéey ci attaque bi di xaar ñëpp ñëw ngir ñu liggéey ci wàllum système défensif. gis naa ne ñoom seen taxawaay vraiment baax na ndax liggéey nañu ci ñeent ba juróom système te doxal nañ ko bu baax ci suba dañuy entraîner dix huit heures ginnaaw suba dix huit heures jeudi dix huit heures fële ca euh, arena mardi bi euh, ci arena lay doon. du ñu def euh, match amical ndax si seen i changé wul ndax joueurs yi di ci changé bëriwul góor gi Maurice Ibou Faye ak Préda ji fi nekkul dañuy intégré rek Amar la mi soog a egg si à Khalifa Dia. Ces frères qui euh, a juste à intégrer Amar Sera qui di sélectionneur adjoint équipe nationale bu basket bu Sénégal fenêtre qualification pour dem ci coupe du monde 2023 dañ ko amal diggante 25 ba le 27 février ca Dakar Arena ca Diamniadio Sénégal dina ci daje ak Égypte ajuma bu 18h jotee samedi ci waxtu woowu Sénégal RDC dimanche euh, Sénégal Kenya 18 ba tey. fii la ñu yem ci xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Youssouf xibaaru caa dégg Ndate Diop. dal leen ak jàmm. fii ak at di maanaam atum 2023 Goethe Institut dina dalloo bërëbam yu yees yi nga xam ni mi ngi ci fànn résidence fi jigee lool musée Léopold Sédar Senghor président de la république fédéral bu Allemagne di Frank-Walter Steinmeier moom moo teg xeer wu njëkk wi ni ki démb mu doon amee ci teewaayuk jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu urbanisme Abdoulaye Sow waaye tamit jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ci réewum Sénégal di Abdoulaye Diop personnalité yu mag ci wàllu aada ak cosaan timit teewe nanu ko njiitu réewu Allemagne di Frank-Walter Steinmeier lañ ciy déglu ci micro Fama Dione. maa ngi leen di xamal ne am naa mbégte lool gis euh, këruk njiitu réew bi fi nekkoon di euh, président Léopold Sédar Senghor bu nu dajee fii tey nag dafay wane ni ñoo ngi jeexal mbir yi mënuma woon a xalaat barab bu gën bi ngir dalal siège bu euh, gët Institut nga xam ne fi mu toll moom dëkkandoo lay doon ak bi lépp musée mbégte bu yaatu tamit laa am monsieur la ministre maa ngi lay gërëm di la ndokkeel jaarale itam ci invitation bi nga ma defal la avenir bu déndu Afrique nag euh, mën naa wax sax suñu ñaari continent yi jàpp leen ni yitte lañ ko def suñu yitte dëgg la en tant que euh, président fédéral dem naa ci réew yu bëri yu nekk ci dendu Afrique fu ci mel ni Ghana Gambie Afrique du Sud Botswana Éthiopie ba ci sax Soudan waaye li ma gën a frappé fépp fu ma ci dem moo di ne da ngay seetlu ne askan ba fa yeewoo li nu bëgg mooy daal di dem ca kanam. Serigne Saliou Seck moo tekki ay kàddoom beneenub inauguration boo xam ne nii ni ki tey ci talaata ji lay am mu di dalloo gu ñuy dalloo institut Younes Emre wala sax centre culturel turc cérémonie bi soxna su njëkk ju réewum turki di Enin Erdogan moom moo koy présider centre bi nag mi ngi nekk ci Fann ci rue Léon Gontran Damas jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. Le Ñambour hôtel et seen savon yi di créole docteur Touray ak seen gamme Opalia ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci ñuy amal tey ngénte liir bu taaru bi di stade maître Abdoulaye Wade ca Diamniadio liir bi nag mel ni ku jël xaat bay rëb turandoo ba nda yéenikaay yëpp daanaka moom la ñu xëyee tur wi ak ki ko Macky Sall jox nag l'info ne Macky Sall jongleur bu mag la ndax jamono yi ñenn ñi doon xaar turandoo ba doon ku yëngu wala ku daa yëngu ci wàllu sport président ci la dribble ñëpp tuddee ko maître Abdoulaye Wade donte nag ñu ne maître Wade mérito na ko bu baax l'info ne jëf ju mag nag la def moom président Sall daal di dabu ba faw ci kanamu bàyyi ju diggante ba xajaboon ba dogoo am amoon sax yéene kaay bi jàpp ne jéego politique nag la def moom njiitu réew mi ngir luy dajalewaat njabootug PDS gi taqale leen ak as lëf leen jokkale woon ak opposition bi rawatina yeewi askan wi mbir yi di sabab bu rafet ñu ne ngir tegaat ci taabal ji dossier Karim Wade yeewi ko raxasaat derba di luy bégloo lool bàyyi ji Abdoulaye moom maître Abdoulaye Wade nag nataalam mu dend ak bu président Macky Sall ci xët bu njëkk bu yéene bi di réew mi yéene bi jàpp ne euh, Macky sargal na PDS PDS gi mu tasoon tasar ak xel bu ñaw le quotidien moom ñëw ci yi waral mu ne Wade ak Macky ab jegeyanto war am seen diggante yéene kaay bi ne bu kenn juum ñu ngi ci terrain sport de waaye yëf yi lanu cey joué ay yoote politique la le quotidien ne bii mooy ñetteeli jéego bu président Sall teg ngir keppaaru ci weti maître Wade ba ca njëkk di ci atum ba mu féexalee ci kaso bi Karim Wade ca wotey présidentiel ya président Wade mel ni kuy fay naar ba xoromam daal di amul candidat jàppalewul kenn ca booba ñu ne Idrissa Seck Ousmane Sonko 2019 ndaje amaat ca ba ñuy dallo Masaalikul Jinaan président Sall saafonte faak bàyyi jëm benn maître Abdoulaye Wade gunge ko ba këram dig ko ñu nepp ngan ngan gu amul ba tey ca nag ñu ne président du gàntu ab lëngoo ci juróom-benn weer yu des ci wotey député di législative yi lëngoo akuk njàppale bu PDS PDS di njaboot ga mu bokkoon la tribune ñëw ci li mu duppee moom rëddi jegeyantoo gi nuy amal ci secret mbir mi nag yéenekaay bi jàppe ko suite logique di ba amoon ca Conakry ndax ñu ne ñoom daanaka diggante bi dogoo musu ca am la mu maître Wade mooy maître du jeu ba faaw moom turandooy estade Diamniadio bi ci yéenekaay bi ku ne nag ci alaaji Ousseynou Diouf Joseph Ndong Ami Mbacké Thiam di wax ci li nga xam wala dund ko ak moom président Sénégal ba woon président bii fi tey le mandat ne mu ngay gën a duunal nag bilam ci wàllu infrastructure ndax ginnaaw TER bi ak yeneen réalisation teg na ca moom président Sall stade maître Abdoulaye Wade estade yéenekaay ne star yu bari nag daañu teewe a Ousseynou Diouf Aliou Cissé Fadiga Roger Mendy ku mel ni Mamadou Niang Yaya Touré Adebayor Okacha Youssou Ndour président Turquie dina fa teew Erdogan nataalam moom kilifa gu euh, Turquie ak naatangoom bu Sénégal ci xët bu njëkk bu la Soleil yéenekaay bi wax ci jëflante ñaari réew yi ci wàllu koom-koom ci secteur yi di énergie transport usines yi environnement wàllu jënd ak njaay ak wàllum culture yéenekaay bi mooy jëflante boobee ñu jële ko 400 millions de dollars yóbbu ba 1 milliard de dollars beneenub jëflante bu Sénégal ak activité la buy am yaram buy gën a màgg buñ bëgg a jëmale léegi ci wàllum pharmacie hôtel yi wàllu dëkkuwaay pétrole ak gaz leneen ne xibaar di taxawaayu sàmm jikko yi ak nanu mujjee waxee ba ci artu ci législative yi ñu dëgmal di élection paluk député observateur jàpp ni ña ngay taar nag jëm ci politique donte kenn ci kilifa yi maam Mactar Gueye ma ngi cee xamle ni ci xeex beeg nguur jigéen dàquñ caa jël wennaw yoon le Ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole docteur Touraay ak seen gamme Opalia